اللبى لو وفاك واللبى كنا بلا غدا بدائيا مزاع بما يغيب ماليا وخادمي أغرديا غدا لدار الكرم نعمك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سينا بالمستقى المترم لاني دما دم Cheikh Modou Kéemaan sama mag ju baax ci yëg si wul mu jokkoog sëñ Abo doomam ju baax ji ni ko sëriñ baa ngi ci yoon wi waaye fi nu jullee ba sëlmal Cheikh Modou tabbi ci bas bi waaye lii Cheikh mu todaa def barki dem ca Tëngéej ca këram ga la magam ju baax de sëñ Modou Habib Ganasi nii lan fa taxawoo woon yor kaddu sëriñ Mawla Habib mi nga xam ne tey moo toog toogaayam Cheikh Abdoulaye Mbacké borom borom dër Mbacké yàlla na yàgg lool nga ànd ak njabootu Cheikh Abdoulaye yi ji ak jëwriñ yi ànd ak taalibe yi ànd ak wàlla maa ngi gis léegi sa jëwriñ ju baax ji sëriñ Salih mii nga xam ni jàmbaar la bëgg lool nga gërëm ko mu nekk impôt yu domaine Cheikh Modou yow la nu duppee rasulillahi sa way juru wu jigéen soxna Aminta la tudd waaye sa way juru góor Abdoulaye la tudd kee ca Makka di Mouhamed baayam Abdoulaye la tudd waaye way juru wu jigéen Aminata la tudd sëñ Modou mii mi ngi gane addina Makka kan waaye ka ca Madina mu nga gane addina Makka kii dëkkam mu nga tudd Medina waaye këca ah Makka nag dëkkam baa nga tudd Medina mu bëgg lool rasulillah waaye mu doon koo xam ni bëggul ku dul maamam Sëriñ Tuuba Mbàkke bis bii sa bisu bopp la yaa moom la di ko tàmbalee ci Sëriñ Moodu moom Cheikh Abdoulahi borom dër di ko ziyaara bu baax ñaan yàlla suma borom yàggal ko fi te wéral ko te ñàggal ay kilifaam ci kanamam nuyu cheikh mouhamadul mourtada moom cheikh abdul ahad ñaan yàlla suñu borom yàggal ko wéral ko cheikh abdul ahad mi woote bis bi koy nuyu bu baax di ko ziyaara mbooleem kilifa yi nekk ci jataay bi yépp di jégglu bu baax a baax ci jataay bi nga xam ne sëñ abdul ahad daf ko woote ngir ñépp mën cee jariñu li fi teew ci ay mbokk ak wëllëre ak i taalibe ak kilifa yu baax yi ci bis bii nga xam ne da koo jagleel maamam soxna jaaratullahi maam Mariyaama Buso ci waxtu wu ne mu di ko taxawal waaye it bis bii nag mu sedd ci cër yu yaatu njabootu Sëriñ Tuubaa gi doy na ci rek bis bii nga xam ne da koo féetale Cheikh Abdullahi borom dër te loolu boo ko waxee rek yaa ngi delluwaat ci biir leer yi Sëriñ Tuubaa dana tàbb it ci biir soxna si ñuy defal bés bi soxna jaaratullah keroog bi ko bindkat ba di tagg bokk na ci lam ko waaye tagge ko ko mooy doomam jiimam muy Cheikhul Xadim te kenn amu ko mu lamboo loo xam ne it kenn lamboowu ko defe naa ba muy jeexal wala ca biir way wala ko waxee ne ko bi ki sana warida wal faqri tabshiratan qad xaaza ibnuki maa lam yahwi abraar yow yaa yeyoo aw takk yaa bakk yow soxna jaara ndax sa doom jii di xaadimu rasuul lamboo na loo xam ne gaa yu baax yi kenn amu ko yu baax yooye nag lam muy bari bari bu dee ci jëmmam ilay yaqaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin yàlla jox na ma loo xam ne kenn mosu ko am kenn dutu ko am loolu feeñ na ci jëmmi boppam moom Cheikhul Khadim waaye feeñ na ci jëmmi ay mbindam feeñ ci ab liggéeyam feeñ ci ñim yar waaye feeñ ci njabootu boppam gi koo ca tànn rek melokaan woowu lay jagleel sunu ñaari kilifa yi nekk sunu kanam muy Cheikh Mamadou Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Mouhamadou Kiimaan moom Cheikh Abdoulahi seen ñaari way jur ya kenn ku ci nekk rek doy na ci mën nga koo tàbbal ci biir baat bii sëriñ bi wax ne yàlla jox na ko lu kenn amul ndax sëñ Abdoulahi dafa bokk ci pay yàlla yi nga xam ne yàlla suñu borom da koo séddee sëriñ Tuubaa doy na ci tawféexam rek defe naa démb ku fàttaliku da nga tudd Ceen Jolof muy bërëb ba nga xam ne fa la sëñ Abdoulahi feeñe jamono waaye tawféex gi àndaale ëndaale xaside yi sëñ bi bind ceyeen bari na yéen yeesalaat ceyeen it bari na ndax yeesalaat na fa yoo xam ne taalifoon na ko door a dem ci géej gi bi mu ñibbisee mu yeesalaati ko ceyeen yaakaar naa boo demee ci dalilul xaayir bu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Xaadimu Rasuul nga xam ne ci lay nett li jaar jaar yi Sëriñ Tuubaa nettali ci tukki géej gi wax na yenn yoo xam ne sëñ bi ceyeen la ko defee waaye defe naa xasida min al xaq xasida la goo xam ne gu ràññ ko la gu siiw sëriñ bi defe ko ceyeen waaye lan la ca lan la tombeel mooy feeñu jamono Cheikh Abdullahi borom dër bi te sëriñ Tuubaa waxoon ne xasida gi ku ko gis suñ borom jéggal la nga xam ne loolu rek doyoon na ci ngëneel loolu mu ëndaale sëñ Abdullahi it dafa am koo xam ne ba nga koy tagg dane shabihu cheikh sa wasfin wa jamaal nee na nuru Serigne Touba moom mooy seet ku nuru Serigne Touba nee na mooy sëñ Abdoulaye saa wasfin wa jamaal nuru ko ci bind waaye nuru ko ci ab taar te defe naa loolu sëñ Moussa indi na ko ci xaram bi fu yaatu mu nekk koo xam ne it aw dox yi na ma ki jëfam wane na ko ci boroom xam-xam yu bari jël seen xalima jooyal ko jëme ko Cheikh Abdoulaye àdduna fii mu toll tey bu ñu bëggoon a gën a développé gën a avancé gën a am yépp dañuy jël ku mel ni Cheikh Abdoulaye def ko modèle ci digganteem ak yàlla boroomam ndax ku ne xam na sëñ Abdoulahi daana wax ne atiihu llaha wa atiihu rasul walakin amalu topp leen yàlla ndax moo tax ñu wàcc fi topp leen yonent bi mooy jaare leen ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam walakin amalu nag mooy na ngeen liggéey defe naa sëriñ bu mat sëriñ la ci yar ay taalibeem eggale leen ci yàlla waaye doon liggéeykat boo xam ne bokkoon na ci waxuma la nit ku ni naw ci économie wala liggéey wala nangam waaye injaazaat yi nga xam ne réalisation yi nga xam ne si Abdoulahi borom dara bi def na ko mënuloo gisaat keneen koo xam ne sax day yëngu ci àdduna am activité yu toll moom def lu mel noonu te yàqul digganteem ak deeyaaleeg boromam gi mu doon deeyaaleeg boromam nekkoon koo xam ne waxtu wu ne day deeyaaleeg yàlla boromam waaye waxtu wu ne kii day wane nit ki fi muy jaar ba mën a jariñu ci àdduna mën a jariñu ci àllaxira amoon tawféex yi sëriñ bi yar yaral ko boppam Sëñ Abdoulahi amoon na tawféex yi sëñ bi daan tëju ak moom am na nekk lu siiw boo xam ne mooy juróom benn weer yu mat sëkk yoo xam ne mook sëñ bi bokk nañ benn néeg bu ñuy nekk nga xam ne da caa seetlu ne day gis jëmmi yooy yi wala yi matt day sam jëmmi sëñ Tuubaa ji ba fees del waaye sëñ bi du dàq du faxas benn bi sëñ Abdoulahi laaj ko na ko waaw ndax yii di matt dala du lor mu ne ko ni nga koy yëgee ni laa koy yëgee waaye bu ma wokkutoo damay yëg bànneexu xesen te Ahmadu du yëg lu may boromam nga xam ne daa jaay lépp loo xam ne mooy wokkutu jaay tàqamtiku jaay gestu jaay wëcc say loxo lépp luy bànneex sëñ Tuubaa da koo jaay moo tax yàlla jox ko lu kenn amul lam waxal boppam ne taabat xayaati bi nabiyil muntaqa wan xaada lii maa waddahu daw tuqa yàlla wommatal na ma ci daraje yonent bi lu teeyal sama dund lu gaa yi baax yépp doon bëgg man la ko yàlla jox noonu ñu meloon it noonu la si Abdoulahi ma ne woon ak i bokkam wane na ko ci biir relation yoo xam ne la ko tàmbalee Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim ba ci Cheikh Mahamadul Mourtada foo ci xool rek da xam ne nekkin wu rafet bi Sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi nekke woon mooy yaatu ak tabe ak mën a yërëm nit ñi ak di jàngal nit ñi yoon wu ñuy jaar fi mu nii tey bu ñu nee Sëriñ ni mu wéetale woon yàlla waaye ñi daan <clears throat> jàpp ne ab sëriñ daawul liggéey ñàkk xam la ku ñuy wax sëñ Mouhamadou Lamine gay day wax ne ab sëriñ muy doomi soxna bu sëñtut day réer bu jàngul day taq bu liggéeyut day loof bu jaxasoog bóor yàqu loolu nag xoola tey dëkk Cheikh Abdoulaye sanc ak ni mu gàttee aw fan ci zahir waaye ni ay jëfam dese tey jii ba fu ñu tudde Cheikh Abdoulaye ñëpp xam ki mu doon nga xam ne xam-xam yu bees yi génn tey ñu jàpp ne nit ñi dañuy leen yar ay jën ay gàncax di am fu ne Cheikh Abdoulaye daana am gan gan gi du wuti dara lépp luñ koy jëfal bu dee ceebu jël la lu ciy aju lépp ci biir du génn daaram du génn toolam loolu mooy liggéey bi nga xam ne doon na ko liggéey nekkin woowu nag mooy ñin war a delloo si waat di leen ci roy ci jamono ndax daje yi ñuy daje loolu lay jëriñ xam nga Cheikh Abdou Lahad Mbacké mu baax ma koy jur Cheikh Abdou Mourtada mi damay faral di ko nettali bi mu génnee àdduna sëñ Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh xalif général Tidiane di ko di ko marsiyal ñi ko way ñëpp Cheikh Abdou Lahad bari na waaye wax jooju dafa am lu mu lu jàpp day tagg si ñëpp Lahad ba yàgg mu ne ko abbo rayta baxdaka madaxan aylaman olama yaa ajodansi turran mufradan alami fa kam faqirin ka ayibin xalla saatukum wa aba yashkurukum kam kam wa kam wa kam shayyatumu kulla ma qad kaana munhadima min ba'di walidikum ya safiya siyam ala jam do si dana sëñ Abdou gàcce nga la am bàyyi nga sa ginnaaw aw tagg yow Cheikh Abdou Lahad yaay borom jikko ju kawe ji yaay xam ne bari waa na ku ñàkk ñëw sa ëtt ba muy dellu sant na ak a bari ak a bari lu màbboon sa ginnaaw bàyyi yaa tabax yow Cheikh Abdou Lahad Mbacké yaay borom jikko yu sell yi yow Cheikh Abdou Lahad Mbacké loolu it mooy la sëñ Abdou Lahad Jaxate waxoon mbokkam ma dana sëñ Abdoulaye boo ko bëggee xam bi wab li juudin yaxiidul man ay sunna xaar maanaa la maa raama man yëpp xii lahu masala waame wuy dottiku mooy lay day yoru sëñ Abdoulaye day sotti ko waxtu ne waaye nee na kuy wër adduna damay wut ku mel ni nee na doo ko gis yom naahu baxru nada yusrahu sayfu rada yurdil aadi wa yaxtil xibba maa amala nday joru sëñ Abdoulaye moo raw géej yuy wàll ngaan waaye nee na càmmoñ ba moo raw jësi soppe bu ñëw laaj jot waaye am noonu neneen waaye mu am nag lu ci sëñ ay jàngal loo xam ne ku ci roy da nga mucc ci yi xew ci jamono mu ne sëñ Ablaay yu taabixul mar dana am din wa yasfau an di qalatin wala yubali bi lasi jahila nee na lu waaye def te tay ko sëñ la cay topp yu taabixul mar kon ñi tay tay tey def lu leen neex te la wax a jéggal ma waxub sëriñ loo ko war te wax yara di ko doxee nu la neex ñëw ñu war a yara ngi noonu wa yasfau an ku juum nag mu baal la nag du fayantoo waaye ku ko réere nag mu mel ni ku la xamut daan mooy koo xam ne aw turam daj na fu nekk fii jamono bi toll it daje yu mel nii lii sëñ Murtala jàngale léegi loolu mooy melokaanu gën yoonu murit lii mooy yoon wi da am xam-xam nëbbu ko am daraja nëbbu ko rafetub juddu nëbbu ko jënde ko lan ak taalibe ndax lu waay yor ba denc ko am nañu ko amoon jaay ko maam Cerno borom daaru lu mu bokk ak Serigne Touba maam Mor Jaara borom Saam lu mu bokk ak Serigne Touba ma Massamba lu mu bokk ak Serigne Touba danoo jaay lañ bokk ak moom ci sëñ Mbàkke Mor Anta Sali jaay lañ bokk ak moom ci Maam Balla jënde ko ak taalibe looloo waral tey seeni kër ak seeni dëkk di riir loolu mooy li Serigne Touba def ku yemoon rek ci ne sëñ Touba sama mbokk bañ koo jox sa bopp keneen ku jóge feneen doon keneen jox ko boppam defal ko loo ko defalut maam loo amul kon li ci sëñ Touba lii moo koy maye ak taalibe nag du lu ñuy lijjanti du lu ñuy pexe du lu ñuy xalaat te ñu ngi influence ndaw ñu bari ñëpp a du dëkk fas yi tolloowul wate yi tolloowul kër yi tolloowul loolu bala nga waroon xam ne ñëpp ñëpp yemuñu tey jii sëñ Mouhamadou Mbacké mi toog na bakkan laa soxla dana ko doy la sëkk bala nga mënoon a xam loolu nag yow ma joxoñ baaraam jëmee ci moom sa bos la ñuy njëkk jël te ngor mënta weesu waggar sëriñ Touba ku romb kaddu gu sëñ miiru jumaa ji daa am ñu koy raay di ko barkeeloo naan maa ngi raay Masaalikul Jinaan sëñ Touba fekk ko fi fekk ko fi Masaalikul Jinaan fekkee déwén bi kaddu gu sëñ Touba wiiru da ngay ñëw di ko di ko màggal ngeer gu sëñ Tuubaa wéeru ñu koy màggal guy gu sëñ Tuubaa wéeru ñu koy màggal kun suulaale daal lu sëñ Tuubaa nga ne texe nga loolu lépp li muy baax baax derete ko gën a foor dereti sëriñ Tuubaa ko des koy waggar des koy wormaal gis nga deeyu gaaw yi gàtti fan yi musiba yi ñàkk yi mooy ñàkk wormaal njabootu sëriñ bi te bu bu ngor desee rek sëñ Tuubaa nag lébo lu nu lu tax ñu koy fay lii ci ñooñu te ku ko defal lu tax mu def la ni nga mel melit amul ku ngemee rek na wax ne ni ma mel baa ni sama kenn mel ni ma def sëñ Tuubaa tax déedéet sëñ bi moo baax rek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 foo leen mas a gis raay buy fekk saxaar bu saxaar gi wàccee raay bi raay bi la ñuy buddi mu fekk saxaar gi wala saxaar gi la ñuy yëkkatiwaat mu fekk raay bi yow yaa ñëw na sëñ bi jébbal naa la sama bopp adduna ak loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi nga wàcc ko ba nag bëgg sëñ bi naan la nangam yow yi la nga waxoon yaa ko defut li nga jaayante bu doonee dëgg ci yow kenn du la wax dara kon sëñ bi daa waroon a wax ab taalibe du ko wax sëñ bi daa war a noppi ab sëñ taalibe du lépp ak sëñ bi ab taalibi du ko wax murit laa waaye ab taalibi du ko loolu ab taalibi sëñ Tuubaa la ni mel ni ab néew gis nga Cheikh Ibrahima Fall nee na woon kër sëñ Bamba ñaari cër fi am cërub sang cërub njaam ku nu mu di jaam boo wéetee di sang fi ne boo nu ngoo nekk murit dëggal bu fi sëñ bi nekkul ku la gis tàmbali laa siyaare jox la addi boo bëggee dagg rang gi nag ay noonu la lay juróon nag kenn du la rang te kenn du la siyaare te kenn du la jox addi kon lii sëriñ bi jàngale woote ko mooy murit gi buñ ko moderne buñ ko jéem a sensé sukk ak raam ak jooy ak joxe addi ak jàng ak jàng xasida ak joxe addi ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak bëgg ko mooy yoon wi waaye di ko seet nuñ koy gisee ni ma ko déggeek ni ma ko jàppeek danoo nekk ci vingt-et-unième siècle ak jamono ji laa sensé ku ko sensé sa programme yaa koy rëccu waaye Sëriñ Tuubaa fa mu nekkoon lay nekk bëgg wut am bëgg wut am bëgg wut am wasalaamaaleykum wa rahmatullah léegi laa ne ko sëñ Gana doonee ko lay def ndax li ci àddina ñëpp ña wax ñu bari dem nañ bàyyi nañ fi wax